Penn la ma nit waaye Mouhamad laa tudd Mamadou Penn laa euh, euh, feebar bi a ah, feebar bi moom ni ñu ko jàngatee mooy mooy euh, ni ko Sénégal gépp santaane rek sunu son excellence monsieur Macky Sall li mu santaane ni pour nu góorgóorlu sa ak ministre de la santé. ministère de la santé ku nekk xam na ni euh, sonn na ci euh, sonn na ci feebar bi trop trop trop sonn na ci suba mu ngi wax ngoon mu ngi wax depuis bi mbas mi duggee ba léegi euh, président bi aussi la même chose mu ngi wax si mbas mi mu ngi def la mu mën moomee tam parce que bi mbas mi duggee ba léegi waxuma ndimbalu ñeneen nit ñi sax même ñun artistes comédiens yi ak artistes musiciens yi président mu ngi ci def kéem tolluwaay kàttan bu jëkkoon joxe woon na xaalis pour ñun artistes yi comme nu liggéey dafa arrêté euh, gars yi partagé mais artistes Sénégal yi léegi dañoo bare bu ba kenn mënu leen ma euh, monsieur le président mënul joxandoo ñëpp parce que artistes comédiens yi léegi ku am si aar bi ñaari fan sax bu ñu nee xaalisu artistes yi génn na rek ki am aar bi ñaari fan sax dafay ñëw taxaw nee na ñu ma jox mais bu doon ñi nga xam ne ñu ñooy artistes yi vrai artistes yi nga xam dañu sonn si aar bi Eh, di yete si aar bi lañu ko don jox dañu waron di laaj diplôme bu don laaj diplôme kon Macky Sall limu joxe dana ñu jëriñ mais légui loolu amul légui ko am si aar bi 2 jours sax da ngay dem rang nee nañu ma jox sama xal ndax si artiste yi la mais ma ngi góorgóorlu mu ngi def lu euh, neex man mi ngeen ñew nak di laaj corona man mako xam man mi ngeen di laaj corona man mako xam xam nga lu tax corona euh, ma gëstu ko ba xam ma ngi mel ne tey jëmm ji jóge sa bi àll ba ñëw dugg si dëkk bi nekk feebar di wut ay xarit yu ko jàppale pour mu mën a gën a dugg si nit ñi corona noonu la mel corona senegal bu mu ñëwagul bu corona duggagul Afrique booba Afrique amul dara booba dara duggagul du moom la tubaab dara mooy sero si tubaab booba dara amagul si dëkk bi bi corona duggee si dëkk bi si la musiba dugg si dëkk bi corona maamam bu góor mooy musiba ndax bu mu duggee si dëkk bi si la musiba dugg si dëkk bi booba corona amagul corona feeñagul ba léegi te boobu mu ngi ànd ak maamam jooju boobu juddoogul musiba bu mu duggee la balaa dugg bala moy ki jappale musiba parce que bi musiba duggé ci dëkk bi rek si la balaa commencé bala musiba ak bala fu nek dégu deegu ñaawa nga ci seen wet pour jappale leen moy dé yi di dé deegu ñaaw ndax corona bi fa ñu waat da ngay jitt ku jiddu yagul dara amul sax ay at corona ba rek muy gatt fa gatt fa ak dégu ñaaw ak musiba ak bala ñoy xeetu ñoy xeetu corona corona ñew nak tudde corona gën a am doole parce que ñooñu ñoo ko jàppale bu comme famille yu ñëw rek di la jàppale toppatoo ginnaaw ba nga am doole ba di faagaagal nit ñi ñooñu ñooy famille corona moo tax corona am doole nii nun na dañu war a wut nu ne tam sunu famille famille bi mooy sel bii ñu yore ak saabu ordinaire ak masque yi ñuy takk nu ne loolu moo war nekk sunu sunu sunu famille nekk sunu ngànnaay pour nu xeex corona mu jóge fi tant que noo ngi takk masque di sel sanuy loxo mu set di raxasoo saabu waxtu bu ne di tak maska xel gu bon duñu xegn corona amul fu muy jaar di dugg ci ñun bu boba legi bu amul fu mu dugg rek lee mu dem ci sama njàngat nit bu ñewé bu ñewé bëgg dugg bëgg dugg ci nek te ken ubiwul bunte bi du fa dugg tank no ngi tak maska nak di raxasoog sel di raxasoog sabu sabu ordinaire o corona do am fu mun a jaar kon legi mu dem motax mané nun ne ñun ñëpp ñun population bi mën na Euh, góorgóorlu si mbir mi jàppale si président bi si boppam jàppale si ministre de la santé surtout ministre de la santé président mi ngi joxe ay ndimbal waaye mini euh, sant waa santé hôpital yi kenn gënu leen sonn na ñoomee tam ndax xam nga ni corona buy demee ba di rey docteur kay xam ne xam nga ni kon garaaw na docteur bi faj corona di la rey kon corona am na doole kon nañ leen ko xeex corona jóge fi te lu ñu koy xeexe mooy ngànnaay yi masque bi moy paaka bi manam nu don sot sotoo nit tay masque bi nu yor paak sel bi nu yore jaasi raxoso sabu bi mu yore fetal ñetti ngànnaay yoy foko yore di xex ak nit nit ki dana daw wala nga rek kon coronatum nan len ko xeexe sunu ngànnaay yi ndax mu joge limay tagato ak ñom moy moy comme wax sank nun ñëpp nan len jog tak sunay masque fagaru ndax dañu ne wolof njaay dafa ne fagaru moo gën faju wolof njaay léebuwaat ni lu defu waxu lu defu rek waxu xam xam nga lu tax wolof ni lu defu waxu boo defee loo warul def il faut ñu wax ko mooy boo defee rek dañuy wax lu aay nekk njàmbat loo ay nekk njàmbat yi mooy eh, feebar boo aay bii dugg nekk na njàmbat ci dëkk bi moo tax wolof ni lu defu waxul lu aay di njàmbat mu ne nag ku at ku aj moo gën a bañ ko séenu kaw xam nga lu tax mu ne ku aj du bëgg kenn séenu kaw li mu at boo séenu kaw da nga koy gis <laughs> moo tax mu ne comme ku aj moo gën a bañ ku séenu kaw boo bëggee séenu kaw sax mu ne looy xool ndax bëggul nga séenu kaw olof day léebu te loolu olof di léebu bu ko nit ñi toppee léegi ñu xam njëriñu bu feebar duggee fii la ko mën a dàq mu dem nun ñëpp nag noonu jël sunu ngànnaay rek mooy li ma la wax rek moo tax sànq ma ne la ngànnaay sunu ngànnaay mooy euh, masque bi mooy paak euh, kii bi sel bi mooy jaaj euh, saabu kii bi sel saabu ordinaire bi mooy fetal bi boo yore pistolet yor jaasi yor yor yor paak koo jub mu daw kon nag bu ñu defee loolu jub corona rek mu daw mooy yii ngànnaay yi ñun artiste comédien Sénégal yépp ñoo ngi wax nit ñi takaleen takaleen takaleen waaw wax deug yaal ñoo ngi def lu nu man waaw loolu ma la doon expliquer ci famille corona nak loolu la bi famille corona mam ji goor ji moy musiba bu mu duggé le wut ku ko dimbali moy bala bala dugg bala momu sétalé ko kenen ndekete gàtt fan la ko indil gàtt fan bobu mu ñëwee nag ñaaw commencé corona di ray rek moy ñent famille yo nga xamni ada ñoo ànd corona corona nak mo mujj a judd moy bëgg rey nit ñi nak moy fièvre bu bon boobu wa 5 personnes lañu musiba bala gatt fan dégu ñaaw corona yalla na dé corona yalla na nga dé corona yow yalla bo budd fan gattal fan artiste yëpp nak ñi ngi jot xam nga dañu yu bare daan def di def comédie mais bi mom sérieux lañu ko jël bu soba yalla dana fi jox man bañ naa ko bu may tëdd sama néeg sax damay takk masque du sànq maa ngi yore woon masque sànq ba sànni naa ko fee takkaat bu bees xoolal yeneen a ngi nii sama sama yeneen a ngi nii man damay takk rek même bu may tëdd sama néeg damay takk damay takk masque tëdd di nelaw